daal ba ci ci caat sekk. waaw am na caat sekk sax pas de guin. wóo wóo. sax pas de guin. wóo wóo. a kenn du wax a cam leer ay yàlla. aba ñun doon sonn na. yàlla tey dégg nga eh maam daal xale yi seen wayi parfois war nañu ko xoolaat. waaw waaw yooyu yëpp ay wayu gone la rek parce que parce que li caat sekk wax. waaw kenn caat sekk li mu wax kenn mënu la wax lan la. nga naan sàppa dëgg ah waaw li mbalax mu neex laa naan foofu loolu la xale yi xam mbalax mu toog la fi def xam nga mag ña way nan dem nan ah way ma ah mbalax moom